alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisani waxlulan minhu uqad wacalhu dakiran wa shakiran abad wacal kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki daara rajo waa at bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar fas yéene di ko yéen ci seen xikmatul yawm bi di leen baaxoo andil bés bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiqam seen mbokk saalix si di leen ko andil tey ñu fas leen yéene andil xikma bu ama am solo jëlee ko ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sunu yaakaar xikma tay mi nag lépp bishaara lay doon te léppit lu wér lay doon incha allah sëriñ jëmbu si la dafa mas di defal sëriñ Tuuba mooy jàpp ba àgg se di ko sottil muy raxas tànkam sëriñ mu ne ko ma jëmb mu ne ko mbàkke mu ne ko xoolal tànk su tuuti si te liy yëngatu ci àdduna lépp moo ko yëngal dal ne ko ma jëmb xanaa xam nga ne man ku ma yaakaar sa yaakaar du tas ku ànd ak man ëllëgit doo li tax ku ma yaakaar sa yaakaar du tas mooy ëllëg yow man xiyaam man rek maay mën a taxaw ne suñ borom loo mas a digle def naa ko te mosuma def looy tere te ëllëg it ñett rekk fa am muy ñu rus la wala nga ànd ak ku ñu rus mbaa nga rus te coono ya ngay daj ba ñu rus la day ànd ak jàmbu yàlla rus moo ko gën a yomb kon moo tax ku ànd ak man bu ëllëgee doo rus daal ne ko waaye nag man de mënumaa ànd ak ñett mën na ko ñett ñan mën na ko mënumaa ànd ak ku yàkkamti mënuma ànd ak ku ñaaw njortu mënuma ànd ak ku ma wóoluwut mag ñi itam amoon nañ kóolute gu ñu àndee sëriñ bi gu wér gu wér sëriñ Mouhamadou Dem bi ko sun boroom joxe sëriñ Abdourahim Dem muy gan taalibeem bi mu yónni woon ne ko demal nga yëgalal ma ko sëriñ bi bi mu ñëwee bañ ba ba ci sëriñ bi bi ko waxee ne ko sëñ Mouhamad dem de moo ma yónni nee na gan dafa feeñ ca kër ga fekk sëñ mu dem fàtte na koo wax ba xam gan gi góor la wala jigéen la sëriñ bi daal ne ko góor la am jigéen mu daal ne ko góor la fa saasa daal la tontu te xamut lum mu doon waaye góor gi sëriñ bi njëkk a tax mu ne ko góor la sëriñ bi daal ne kon nañ ko tuddee Abdourahim kon mag ñi foofu lañ nekkoon ci wóolu ko Tuubaa am na it bis muy li ne sama dëkk bi tubaare danañ dem ba ndox yee di di jaar ci suuf ku ne di ko jariñoo nam ko soobee te booba ndox jafe na fa lool am kenn ku ñàkk tawféex ku ne ko loolu de xanaa mbàkke ku gudd fan dëgg koy fekkee mu ne ko ku gàtt fan du fekkee dara kooko dafa daldi faatu fa saasa cheikh mouhamadunil moustapha waxoon na ne man de bu ma téye woon kaasu kafe ba mu wóor ma ne lii kafe la li sëñ tubaa wax ak li bind te ak seegut moom laa gën a gëm ci kaasu café bi sëriñ Abdul Xaadir radiallahu anhu mas nay toog ñi di ko siyaare sëriñ Moustapha Sy di ko jàngal xasida am ku ñëw di ko ñaanloo ci ab biteel ngir tawat ji mu bëgg mu saafara woo bi sëriñ Abdul Xaadir tey jëyi biteel bi rek di bëgg ñaan sëriñ Moustapha Sy toll ci allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani shifa min kulli daa muqaddari mu ne ko am sëñ Tuubaa saafara na ko sëñ Tuubaa saafara na ko am na ko ñëwoon ci sëriñ Tuubaa ne ko man de Mbàkke dama tiit mu ne ko lu tax mu ne ko dama ragal sawara ëllëg mu ne ko ma de jaaxle naa ci ku nekk ci digg géej di tiit daay guy tàkkee ci àll ba moo bintit wax ne bépp murit bu aju ci man du gis lu ko naqari àdduna ak àllaaxira kullu muridin bi yàlloo su yasaadu fa innahu min al aza mubaadu moo waxaat ne suñu borom nanga gaawee faj aajo yi ki nga xam ne dama jublu yaa rabbana ajil qoba xaaja man qasadani wa kaana li walil aman moo ñaan di suñu borom faj aajo boolem ñi koy liggéeyal adduna ak àllaaxira waqdi xawaaiji alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu luñ bëgg rek nanga leen ko defal waxaat ne ñi nga xam ne dañuy gaaw ci dima liggéeyal de bu ëllëgee nanga leen jox këri àjjana yu doy sëkk inna alladina saarao li xidmati fa lahum diyaaru wastal jannati Cheikh Mouhamadul Fadal it bindaloon na ko ab kaamil jaay ko ko njëgg la nga ko ko jaayee mooy képp ku la xam du tàbbi sawara sëriñ Dame Abdourahman Lo itam jaayante woon naa ne ko damaa bëgg ku jébbalu ci yow bu defee luñ ko war a mbugalee ba war koo tàbbal safaan ba ñu teg ma ko sëriñ bi ne ko loolu ak njëg la moo tax mu digaloon ko muy naafila kaamil bi guddi gu nekk ñaari rakkaate daana ko def ba ni fi jógee moo tax. sëriñ Moussa Ka di wax naan ko Cheikh Bamba yaay ngën ji rus foo génn xànjar dal di rus gor su la waaje dootu rus doy nga takkaayal xarnu bi def nañ la ngay sonu takkaay di sin bitik nu di la jaay yaa gën i bàyyi gën i nijaay yaa gën xariti xarnu bi <laughs> moo tax day wax sax ne kii ku ko gis sax ku la gis ku gis ku gis waaja la gis su ngeen demee ca booba bi su mu ràmmu leen kenn du torox loolu nag bu la jaaxalee am na ci xadis yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ko dem ci Tirmisi da nga ko gis yonent bi ne tamassu naaru musliman raani aw raa man raani sawara du lakk julit bu ma gis wala mu gis ku ma gis am na beneen xadis bu waxaat ne sax tuuba liman raani wa amana bi wa tuuba liman raa man raa man raani waaw nga xam ne ba muy ñetti yoon ma ñeent loolu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ko xam naa nag ku àlliwam soriwut ni man mën naa laaj ne kon yéefar ya ko gisoon nag wala ñu gisoon Sëñ Tuubaa te bañ ko nu ñuy def déedéet demewut noonu yéefar yi ñoom gisuñu muhammadun rasulullah yéefar yi muhammad ibnu abdullahi lañ gis moo tax ci alquran sax boo demee ji suratul araf suñu borom day leeral ñu ko gis te gisewuñ ko pas-pas ñàkk gis ga nam leen di ñàkk jariñee moo tax mu ne ko yéefar yi ñoom dañ laa xool waaye gisuñu la wa taraahum yanduruuna ilayka hum laa yubsiruun kon nag yàlla na yàlla defal tawfiq sëriñ tubaa it nee na suufu tubaa de ñaan naa fa ñett ba suñ borom nangul na ma ko muy ku ñu fa suul du gis du gis xisaab du gis xiqaab du gis azab seen wuy bi ñëw na gaañi kaay leen toj ko bañ ma a jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñi màcc ñi notari ñi njambaan ko ku féete woon naa na ngeen seggal ko in uridu illa al ma stataxta wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh